نثر من الله وفتح خريب وبسر المؤمنين برام نثر الله دين جاري في اي دومم تخوكو نك في نيوميت ما شاء الله نك وين في لدول دين اك الاسلام اك ليغيل سيرن توبا ما شاء الله سن غامو باي بي نك ني ديف ات مو جوت ما شاء الله غامو غوغو دغمل ني وار ديف سامدي بي Eh, jomboog le 10 inshallah allah février yalla nañ ci yàlla yóbboog jamm ñu and ak tal ak fekke inshallah allah lu mu mën wax ci waccay gàmm gi nga xamantene ni ci ngeen nek waaw ah, waccay gam gi li ci nek moy nin ko daan programmer ren la raw gi mom sunu ñaanu mam la sunu ñaanu jaay la sunu mama ko daan def ñu bàyyi ko fi ñu fekk sunu jaay ko def ñu ñaanal sëñ morkan khalifa bi fi genn yalla xare ko aljana yàlla boole ko ci àjjanay firdawsi lépp moo commencé woon sëñ Assane di taalu biir di ko jàppale dëkk bi boo ko gisee ni mu demee nii ni boo ma ko dee prévoir nii rek gàmm doo ko defar yoon bi su gàmm gi ñëwul ñu doon defar yoon bi yoon bi moom ñun moo ñu gën a neex na lool waaye bala ñoo defar yoon bi rek gàmm gi daa ñëw ñu sonn noonu lool nag na nag fii ne ñoo ngi sant yàlla bu baax ndax courant bi ñëw na ndox mi ñëw na gàmm gi moom macha allah neex na trop tegu na ci yoon aw na ci diine ñu ngi ci wàccee kaamit di ci ñaan waa kenn ku nekk bu ñëwee gan ñi da ngay wàcc sam ni dala leen di yaatal leen ñu bokk ànd lépp def lépp di berde ñuy lekk di berde ñuy naan ñu ànd ka kaf di ree gàmm gi moom macha allah neex na trop lii ci gën a neex nag mooy sëñ Assane na borom Nasrou Minallah sëñ Assane dafa bëgg dëkk bi te bëggantuwu ko ndax ba méttee tamit fee la daan gaari ci pénc ma kabi yob ceebam def ci suukaram def ci ceebam de kër gu ne mu dugal ci saako ceeb di ko jàppoo di ko jàppoo ba fi ni macha allah bu gaamee ñëwee le dix bi ay nag lay rey ca penc ma kër gu ne mu dugal ca ndawal macha allah sëñ Assane bëgg dëkk bi lool dëkk bi ñor ko lool boo jógee mbaaleen boo demee ni sëñ Assane mbaaleen laa dëkk demee ne pare sëñ Assane ne dëkk bi moom mooy pare ndax baayam di dëkk diine sëñ Assane jàpp ci dëkk bi lool nag te jàppantuwu ci ñu ñaanal sëñ fi toog di xalifa bi yàlla na xalifa gi yàgg ci kawam yàlla na ko yàgg jiite sëñ Souley moom itam kenn gënu ko ku baax la Baye Souley ku baax la ku am yërmande la ku am diine la ñu leen di ñaanal ñoom yëpp gàmm gi daal moom dina ko gisee ni moom ñu ngi koy waajal ñu ngi koy waajal nag te am ci yéene am ci mébét yàlla na ko yàlla yeggale ci doole Sidina Mohamed waaw ndax gàmm gi moom daal moom macha allah rek. waaw du ko mel ni ren dégg naa ñu suñu asan kan moomu ngay wax. waaw indi na fi yu bëri maanaam ay rakkam ak i magam ci nekk faggul na la nag. ak euh, loo xamante ne nii rek moom ngay waajale gàmmu gi ah, lu mu mën a wax ci loolu soxna si. waaw suñu asan noonu mu def da ren ne la defoon daaw daaw de xalifa bi di bàyyi nag yu bari la ko wàcceel ak dund bu bari ba waa soo dara manqué wul ceeb dëwlin dara manqué wul mu tekki sëñ góor a kan jox ko mbubb jox ko fukki junni ni ko nga def sa soble daal ko yeewal aw nag dem ci sëñ asan mu yeewal ko aw nag waa dëkk bi mu yeewal na ay nag comme ni la ko waxee woon ni mu ko defee woon daaw daal ni la ko defee ren kenn ku nekk li mu warloo yow defal na la ko ci ñu bokkal baay ñu bokkal dëkk bi kenn ku ne war ak yow defal na la ko ci affaire yi xéwal yi ak teraanga yi ak sutura fi waaw suñu asen moom jàpp na ci bis bi loolu te jàppatoo ci moom li wax ni dëkk bi da koo ñor moom fukki dëgg ñett la dëkk bi ñor na ko bëgg na dëkk bi waaw waaye waa dëkk bi nañ ko ndax ñun waa quartier Arcade bi tam suñu asen jaral nañ lu le ndax sëñ asen bu wootee baraxlu ca nastu ñun waa quartier Arcade ban cey dem sëñ asen dañuy teeru teral waaye ñun tam bu ñëwee gàmmu baayam gii mm. li ko daan fayee di di fettali suñu kóllëre ak moom ni ñu koy jéem a fayee sax mën na ko fay sax waaye dañu fettali suñu kóllëre ko fay tey lu toll ñeenti bagaani cere suñ ko solee maam Demba Diouf moo bàyyi seex ñoo ko sol dina nekk saako cere sëñ Assane lañ koy tayal lépp lu ko waral ak kóllëreem ak baaxam ak bëgg waa quartier Arakaat bi moo tax ñu dugal ci loolu mun na koo fay sax nag mm. gaam waaye nag dañuy jéem a def rek lu toll moom ndax sëñ Assane moom lu ko waay def rek jó jóbbu ko waaw taxawaayam ci koor gi nga xam ne lu am solo la koor moom ku ko xam-xam ne lu metti la ah. rawatina dëkk bi nga xam ne mooy mbaaleen nga xam ne am na yu bëri yoo xamante ne ni jegewu fii nan ngeen di def ak Serigne Assane Kane ci koor ni ma la ko waxewoon rek Serigne Assane koor gi ñëwee li ma la ne camion bi lay taxawal fee wàcce suukar wàcce ceeb kër gu nekk mu dugal ci ceeb nga xewloo sunu demee baraxlu fee ñu koy ñaanale di ko fa joxe ndogu ya buñ demee dinañu jox suukar jox loolu def ci sunu poos ñu li ma la wax ci sëñ Assane sëñ Assane daal moom ku baax la ku baax la lékkul dara baa leen doon përi wax dëgg mu nga ca lékkul dara wàcc ay mbokkam lékkul dara dëkk bi li mu ne lu ma sañoon baa leen ma nekk përi mu ngi ci tànkam sëñ Assane lékku wàcc nu naanu wàcc nu sëñ Assane ko am ko la jàpp na dëkk bi si jàppantu ko li mu ne dëkk bee ko ñor fukki dëgg ak ñett la ñor ko moo tax mu am kër kees ñëwaat defaraat këram gi fii def fi jàkka ñu di fi julli di ko ñaanal këram gi yàlla na ko jikk yal nañ diglayum kër gi yalla nañ diglay sëñ assalamu alaykum sant di gërëm tay gam gi mom neex rek borom bis bi mom mo defar bisam sayidina ali mom kenn la bañ ko dalé def ba tay wax deug yalla jàmm rek ak tawfiq ak wir ak ak le saay rek baatin fekke ak tal yalla nañ ko def ay ati ati at yu bare di daraja yalla ak Muhammad lo rek la ñaan yalla di gërëm sëñ Mor Kane yal na xëppee àjjana ci daraje sëñ Fallou yal na ko yàlla defal jàmm ak salaam yal na yàlla def tawfiix ak wér ak wérle ak mucc ak muccule saayir ak baatin ku fi ñëw indaale feebar yàlla booy dem yal na la yàlla defal tawfiix bu wér tëlëg ci barke sëñ Fallou ñoo ngi sant di gërëm gàmm gi moom wax dëgg moom sant yàlla rek lañ ciy def hmm. sant rek la ñuy def sant rek te duñ tàggoog di sant fu ñu toll rek nag hmm. di sant Seydina Ali rek ak suñ morkan hmm. yal nañ xippee àjjana ci dara yàlla su Muhammad yal nañ ci dugg bisimilahi rahmaani rahim yeggalee ko alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf waaw dañuy wax ne euh, seen seen seen jëwrin ji sëñ Assane Kane di porte parole xalifa bi euh, waaye di kenn ci ay taalibeem mu mel ni dina jàpp ci gàmm gi bu baax a baax a ak lan mooy taxawaayam ci ci gàmm gi ak ci dëkk bi ñuy wax mbaaleen di dëkku baayam dëkku asankan moom jàmbaar la fi bu baax ndax xam naa ne képp ku doon këruk sëriñ dugal na fa aw nag dem ci guddi kon hmm. jàmbaar la am na diine hmm. am na lislaam te wax dëgg yàlla moom li muy def ci bis moom kenn du ko fi def moom amu fi ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax yàlla na fa nag gudd and ak wir ak wérli do mhm. dal lañ koy ñaanal fuñ toll mhm. muy señ Assane kan mhm. ñong koy ñaanal bu baax diko sant diko gëreum do rek lañ am ci luñ koy defal dal ñu julli diko ñaanal fuñ toll dal mom ñu koy ñaanal ndax li mi def daru baalit gi talibi def ko kon ñoo ngi sant bu baax est-ce que mom nimbalam ci ci ci ci mbalen est-ce que ci gamu gi rek la yam wala wala wala dina leen dimbali ci koor ak. ci tabaski ak yenn événement lepp lañu dimbali koor bu jot. day day indi camion keef suukar ay enveloppe lu ne lay indi te tabaski tamit dafay indi ay xar lépp lay indi waaw ñu ngi sant di gërëm xam naa li waxuma xalifa bi mais ñun ñi nga xamante ni donc ay sugum goy lañ ñun ñuy defar ñun suñ jëm bopp képp ku doonu jigéen di yeewoo ci penc mi fii enveloppe la lay jox bu kor joxee ñi saako ceeb ñi bidon mi diwlin moom daal lu ne lay indi rek sëñ Assane daal lu ne lay indi moom yàlla daal lañ koy bàyyee leen mhm. mooy am fay yal na ko fay daal moom jàmbaar la wax dëgg yàlla te amul morom mhm. barki démb boo njaay doom bi muy ubbi jàkkaam taaw suñ morkan la ko may soxna boole koog cinq cent mille mhm. ne ko defoo loo dara lépp man maa koy def kon kooka sant rek lañ ko war a def te ñu ngi koy sant nag fu ñu toll sant rek lañ ko war a def suñ morkan moom xaw ma lu mu ko lebaloon moom waaye suñu asan fay na ko waaw xam nga ne moom su may la soxna boole koog cinq cent mille dana def loo ma ci dara loola moom yombul té loolu la defal Baye Cheikh kan ni barki dem taw seigne Mor kan barki dem bi jakam bi loolu la ko defal mm. kon ñong koy sante diko gëreum mom mm. faay bu mbaaleen yëngutoo ñi ngi yëngutoo sur nak mi ngi ci bàyyiwul loxam ben yoon sur rek seigne Assane ci mbali ndax fi la juddoo fi la yaro kess daan dolem doog mo ko yob bam dem am fa teranga toog fa kon fii la mom té lim fi def nak kenn defu ko fi ñong koy sante diko gëreum diko ñaanal yalla waaw ah, kii di xalifa bi di Baye sulay kan est-ce que seigne Assane kan ànd naag moom est-ce que mi ngi koy jàppale moom it ci liggéeyu baayam bi nga xamante ne moom la yàlla teg ci bopp bi tey moo fi xalifa est-ce que mi ngi jokkoo ak moom mi ngi koy jokkoo ak moom mi ngi koy defal lu ne. Hmm. këram gii boo fa demee ma nga mel ni pelaal te lépp suñu asana. Hmm. barki démb la bu démb la ko indil ñetti nag xaw ma ñeent kon ñu ngi koy sant bi ko gërëm xalifa bi moom wax dëgg yàlla manqué wul del te lépp moom la rek ak taalibe yi te amu ci morom nag suñu asankan hmm. amul te ku ko wér moom moom wax dëgg yàlla jàmbaar la kan jàll amul benn morom xalifa moom lu ne la koy defal lu ne dundam sax moo ko yor mm-hmm. dundub xalifa bi sax moo ko yor sëñ Souleymane kan mm-hmm. kon kooko jàmbaar la mm-hmm. Touba laay jóge sak at ah, ñëw di fi def see mbaaleen ji màggal sëñ Fallou ren ji falaa ko bàyyi mardi bi Mati njaay di ñëw laa ànd ak moom na man soppeem laa rak ko Assane Ndiaye laa ñoo bokk nday ak baay waaye man soppi sëñ Assane kan laa fu ma toll dama koy fësal soppe Serigne Assane Kane laa man Serigne Assane Kane laa bëgg Serigne Assane borom nasru Serigne Assane borom nasru xolub kanam bu leen suul bu leen ko xol ba tubiki ñaan bamba ko tek ci xarnu be serigne asanu borom nasru serigne asanu borom nasru xolup kanam bu leen ko sul bu leen ko xol ba tubiki ñaan bamba ko tek ci xarnu be maa ngi koy ziar baax di ko jox jef waayam jërëjëf loo gisee màggalu Mbaleen gi nga xamantene ni ñong koy préparer gannaaw suba ci kattanu yalla lo mën wax ci waccay gabu ah ah sha allah ñepp nga fi fii baskat yaa ñuy toog a ngi nii dara manqué wu fi ginaar yi doy na macha allah ñoo ngi nii ci biir waañ bi soxna Mbène a ngi nii toog ak soxna Penda ak soxna Mati Ndiaye soxna Ndeye Ndiaye soxna na nga ne la ca mbanagam macha allah kontaan nañ suñu xol sedd na guy mbaaleen ji moom dañuy ñaan ca kaw ca kanam rek ci lu baax ci barke Cheikhouna Al Khadim lu sëñ Assane mën ren nag bu déwénee yàlla na mën lu ko ëpp ci barke Seydina Mouhamed sant nañ bu baax kontaan suñu xol sedd na guy mm. ñun bu ñu and ak suñu asan rek dañuy bég dañuy gën di béli tamit ok assalamu alaykum wa rahmatullah my name is ziar bu baax mbokk talibé yi ku ci nekk ma ngi lay ziar bu baax di sant yalla bu baax di sant samay ñewaajur di sant sel Assane Kane borom nasu bi nga xamanteni tay luñu xam ak luñu mën mom la tay suñu toge fi tay ji ba mën lii yépp yàlla jëmmam jooju comme ni ko suñ Assane Fall waxee rek mbaale ji ba muy door ñu ànd ko maag sama borom kër ma jaaw ba tey jii ma jaareetuñu dara lépp luñ soxla rek mu ci biir waañ bi dematuñu fenn taxaw gàddu suñu kot wala ñu taxaw fenn ne euh, ma mbaale ji waajal fii la ñuy toog lépp diñ fi fekk suñu wàcc fii suñu oto lañ fi wàccee suñu ndugg yëpp ba mu mat fat yiñ fi def yëpp macha allah wutiwuñu dara wëri wuñu dara lépp mat na macha allah di sant ñi ma àndal ñi ñëpp ci waañ bi soxna mbee nag soxna penn mi soxna Maguette Sall sama rakk di day jóge ba Touba at bu ne saa yu jógee fi fi jógee sax day waaj pour dem ci sëñ bi mais xat-xat yi mooy tax du dem ñun ñëpp maa ngi leen sant soxna Faatu ak sama mag bu jigéen bee ci ginnaaw moom it Dakar lay jógee chaque année di ñëw di jàpp ci liggéey bi ñun ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm maa ngi sant euh, Ablaye Ndiaye bu baax tamit ndax eh, luñu ba pare tamit diñu fa kastal mook eh, papa ji yépp ñu ngi leen sant ñom ñëpp di leen gërëm di leen ñaan la lu luñu mën ren rek bu déwénee yalla ñu mën lu ko raw ci barke sayyidina muhammad sey Assane Kane ma ngi koy ñaanal yalla lu mu mën bu ren jël bu déwénee yàlla na mën lu ko raw ci barke sayyidina muhammad lu am mom la lu xam mom la lu mën mom la amuñu dara mënuñu dara lepp sëñ Assane kan la kon loolu dañ ko koy sant bu wér a wér damaa muyu wax nag ndax danga maa fekk nag tey ba sama waañ kon nag bu mettee sax dinaa wax waaye bañ ma xamee ba tey man xamee wu ma sax wax yàlla xam na ko mun ma wax waaye maa ngi koy sant bu baax di ko wax daal ñu ngi ci ginnaawam lum ñu digal ñu def te lum ñu tere ñu bàyyi loo te yàlla bu muy gis tamit ci lum ñuy tere sax nag ci barke Seydina Mohamed maa ngi sant ñëpp ak ba ci kër gi nga xamante ne baay papa dañ fi dal dinaa ko boole ci wax ndax Baye Papa Dia yaatal nañ ci kër yaatal goo xamante ne nii këram gi amuñu fi sens interdit ñoom taan Adama bàyyiwuñu ñu daal macha allah dafa mel ne suñu kër dafa mel ne suñu kër la ñu nekk soo tey maa ngi ko koy sant di ko gërëm ndax këru njaboot ci boppam macha allah mën nga faa nekk xat fa mais fii ñu fi benn yoon du xale yi du mag ñi du ci kenn ñu ngi koy sant yàlla bu baax di ko gërëm di ko sant sëriñ mhm. Assane Kane jërëjëf sëriñ Assane Kane jërëjëf sëriñ Assane Kane jërëjëf te mbaaleen gi tamit euh, maanaam ay at a ngi nii du ko teewee di taxawu baas bi ñun ak njabootam lañ ci lañ bokk mën naa ni doom laa ci kër gi waaye taalibe laa ci kër gi doom laa ci kër gi mooy lépp lu doom lépp lu waajur di defal doom Sëriñ Asan ma ko defal man moo jàngal takkal ma soxna xamal ma àdduna lépp lu lu mat xam daal moom laa ko xamee kon man moom doom laa ci moom talibé ci kër gi nak moy ci mom la djéblu mom laa yakar aduna ak àllaaxira kon lay té waaw liggéey bi tamit ñu ngi ñaan yalla ni ñu ko tambalé ci bismillahi rahmaani rahim ñu agalé ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ndax borom na su ku jara ñaanal la ndax dajalé gi bu dajalé fi talibé ñi ñak ngir jëm yalla loolu yalla nak ko suñu borom fay aduna ak àllaaxira te may ko ay daraja yu kawé nak ci li muy liggéey di lo nit ñi ñuy ñak ngir jëm yalla Ah. dajalo bi dal fi ci mbaaleen lol dal moy sabab bi moy moy bëgg gu ñu bëgg suñu sëriñ ak sopp gu ko sopp moñu jaral ñu bayyi suñu kër ak lepp luñu am ba leppam maam ba nga xam limu li mu bëgg fii dana sorti dal buñu déggé jërëjëf nak suñu aajo faju na rek moñu fi tax a ah, ñi sant yalla bu baaxa baax mu ñaan suñu borom dolli jamm doliko dolli dolli ko yokk dolli ay maqaamam guddal aw fanam ba naal yi mu ngir ligéyal mamam Cheikhul Khadim suñu borom agal ko lu fa wax ndortam non lay nuyu rek khalifa général kullu Baay fall di nuyu tamit mboolem kilifa diine yep ci rew mi ak bitim rew di len ziyaara bu baakha a baax bo defé na nga laaj laaj bu am solo muy gam mbalen li waral nak muy jëm ju tedd ju bax ju sell ju liggéeyal boroomam ba boroomam gërëm ko jox ko ay may jox ko ay maqama yo xamante xel mënu ko xalaat muy Serigne Aliou kan nga jambar la da bay ci toolub Cheikhul Xadim jaarale ko ci suñu morja mu jaar ci maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiin jëm ci Cheikhul Xadim mu dem ci Seydina Muhammad Rasulullah mu àggale ko ci suñ borom nga xam ne bisam boobu moom la ñuy wàcc muy suñu maam ñu yàgg ko fekke nag ay at at jiit sunu judd nga xamanteni suñu sunu waajur ñoo ko daa morkan and ko mbolam ay rakam yépp daanaka def nako ci dundam 4600 amna mo japp limu waliyu jàpp ci keppaar gi ginaaw yalla nak mu ñibbi aljana sëriñ Souleymane kan nekk fi moy khalifa bi mom lañ waroon jital sax ci nuyo bi bu defé ñu koy ñaanal tamit suñu borom yagal ko fi te wër mu àggale liggéey bépp mo ko ay rakam waaye muy bis boo xamante ni bisum nitu yàlla la ci ñàlliw kan ku ne xam na ko nga xam ni bërëb bi moom doonul ku ni laajte ndax def na fi lu ne boo defee bis bi muy bis boo xamante ni bisub yokkute la di bis boo xamante ne bisum nungu ñaan la di bis boo xamante ne bis buy dolli ay maqaama la ci doomu aadama kon bu ko defee ñu ngi koy yëgal képp kuy ab julli rek mu teew fi ci kàttan suñu borom ñu àndandoo yi wépp bu ko defee bis baa ngi noonu. waaw sëñ bi bala ma laa bàyyi rek. Euh, sunu sang sunu sëriñ sëriñ Assane Kane. borom mhm. na suñu yàlla na fi yàgg lool te am. amiin amiin amiin amiin. moom it muy wàcc Gamou Mbale mhm. bu baax a baax a baax a baax. ci lu yàggul dara sax defar na fi makkaan. mu mhm. war a teeloo ay taalibe waaye mu war a teeroo ay ganam. waaye ñi mu war a teeroo jullit yeeg bokki taalibe yëpp yi nga xamante ne war nañoo root si fii ci Mbaaleen. waaye defar fi jàkk joo xamante ne nii bërëbu jaamukaay yàlla la. ndax moom ku ko xam-xam ni. Eh, ku bëgg jaamu yàlla la ku ko hmm. xam it xam ni mu nekk hmm. eh, bëgg na jàkk ci wetam ngir jaamoo ko suñu borom ak jaabi hmm. yëpp macha allah noo gisee taxawaayam ci gàmm gi ak eh, nu muy waajalee gàmmu mbaale waaye muy muy muy jàmbaar lool Serigne Assane Kane ñu koy nuyu tamit bu baax a baax nga xam ne nit ñi di wax ak yow sax lépp lu nekk ci ñun moo ko ci def ak jàmbaaram foo ko natt weesu na ko lu ko waral nag mooy suñu borom rek la dëgmal yàlla la teg ci kanamam ak képp ku nekk ci ginnaawam tamit suñu borom rek la lay wan ci noonu nga ko waxee kër gu mu samp rek daanaka def na fi jàkk ndax ñun ci keppaaram la ne waaye eh, ak sampam ci pénc mi dafa yàgg ndax suñu mor kan xarifab suñu yàlliw kan moo ko fi sampal ba nga xamante pénc mi doy na waar lool boobee gënoon naa metti gënoon nunoo wét gënoon nunoo tuuti waaye mu taxaw ak jàmbaaram ak ngorom ak nangu kilifteef doonub taalibe ngir bëgg a liggéeyal yàlla jaarale ko ci Cheikhul Xadim maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Aliou Kan sëriñ Mor ba taxoon sëriñ Mor jàmbaar ja defoon ko muy ab porte-parole dolli ko muy porte jëfam di leppam mu am ci taxawaay nag bu am solo ndax nit dina la wóolu yaakaar la samp la waaye kooku dana bañ a ko mat dana ko bañ a mat waaye moom place ban ko jox da koo mate sëkk da koo mate sëkk ci ngorom ci jomam ci ci jaamu yàllaam ci muñam motax limu li réagir ci l'islam mu réagir ko xam nga ni non nga ko waxe barki dembu rek dafi tabax bu am solo ngir gan yi nga xamanteni ñoo fi dal ci gamu gi kenn ni a tumranké kenn bañ am lo xamanteni dana ko am ay jafe-jafe ci bërëb bi tabax fi jakka yoo xamanteni ay millions la ci def lepp ngir jaamu yalla rek ku dik mën am fo jullee mën am fo defee say rawrat maanaam foo sellalee sa diggante ak sa borom moom rek la ci jublu ci yàgg na koo def ca nasru gi nga xamante ni fa la ne kees kenn yebu ko fa ñëpp ko xam ci wàllum diine ñëpp ko xam ci wàllum lislaam waaye mu liggéey ci pénc mi lu am solo xam ngeen ni si nasan moom ni ma ko waxee sànq jàmbaaram fu ko waay natt weesu na ko lu ko waral nag mooy chaque jour day jël bëtam teg ko ci sun borom lam doon digal yeneen yi ta don ko ñaax sayidina muhammad rasulullah muy fas bir kama sabaru ulul azmi nga muñ ci lu rek la ne ba sun borom fekk si ko ci lepp lo xamanteni ni mal nako ñu diko gëreem nak diko ñaanal bu baaxa baax sun borom guddal aw fanam waye yokkuteeg bërëb bi mom loxo mu ngi ci bu baaxa baaxa baaxa baax ndax serigne ko nungun ab liggéeyam ndax mom ak magam ju baax joju serigne morkan ñoo fi nekkoon mu taxawu ko ak rakam yu tedd yépp Serigne Cheikh Kan nga xool moom tamit li muy liggéey jumaa ji la lépp nag maanaam lu muy wane mooy yàlla nangu na jëfi sëriñ Aliou Kan ndax Aliou Kan bu fi nekk moom kese samp ci bërëb bi ba ak njabootam dikk taxawal fi ay jàkk taxawal fi ay juma kon sëriñ Aliou Kan suñu borom nangu na ab liggéeyam nga xam ne ñoom pinc bi fan ko fekk yóbbu nañ ko lu fay ko day gën jëm kanam ndax bami wax ni kep ko ay aajo nur ta faju doo fi tek sa tank mom pencim pencum balen ku fa tew say aajo fajo kon bu ko defé ñu ci soñu julit jullit rek ñu ñew taataan ci leer yi ndax bërepp bi bërepp pajuk aajo la bu defé defee sinaasan moomu nga xamni waccay wami wa def nasur rek ties du doy war la gisoo bernde yi nga xamante ne daanaka kër gu ne dugal la fa aw nak teranga yu bare bare nga xamni ne daanaka gi man na ni gamam la moom loolu la gëm loolu la jàpp loolu lay doxee lu ko waral nag mooy xër ci kër si ñàllu kan xër si liggéey way juróom boobu lu koy jëmale kanam ndax la muy jàpp chaque jour mooy dafa war di jëm kanam waaye du dellu ginnaaw mukk te loolu mooy xent yu muy xent mbóorum Seexul Xadiim ndax wa am si yuñ si nii bi yow mi yóbbee xat Sëriñ Tuubaa tayam dina day gàccal démbam moom Sëriñ Asan tamit tayam dina daanaka day gàccal démbam ak waa kër si ñàllu kan képp waaw ki fi nekk tey di xalifa bi yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér moom Serigne Souleymane Kane. ana naka la def ak Serigne Assane Kane mi nga xamante ne nii rakkam lo topp ci gannaaw moom it. comme yéen ñëpp ni njaboot bi topp ci gannaaw ana lo mo mën a wax ci loolu. waaw loolu tamit di loo xamante manam maanaam ku ne teg na ci bëtam daanaka euh, bi mu magam Serigne Mor nga xam ne fi don Serigne Diallo Kane ànd ak mom ci liggéey bi diko taxaw ci lépp lu suñ Mor Kane mu dagg lu bëgg lu mu bëgg mooy ak bëggam fu mu xool moom la Serigne Assane Kane di xool lu muy yëngatu foofa la Serigne Assane Kane di yëngatu lu mu taxaw ca la taxaw day bàyyi ak taxawam moom bàyyi ak nammeelam bàyyi ak bëgg-bëggam ànd ak Serigne morkan ci lépp lu mu bëgg di ànd ak moom ba Serigne morkan ko gërëm gu ne goo xamante lu waay gàtt dégg-dégg wala lu waay ñàkk xam na ni suñ Mor gërëm na suñu Assane Kane bi ma ànd ak moom ba suñu Mor Kane nu ñibbi àjjana tegguwul tànkam benn yoon ndax murit moom du wàcc mukk ginnaaw xam gi nga ko xam nag mu jëlaat lépp jébbal ko magam ju baax ji ci Serigne Souleymane Kane taxawu ko ci lépp nag taxawu ko ci fépp taxawu ko ci fu ne nga xam ni moom digganteem ak Serigne Souley xanaka moom mënee ko wax sax ndax taxawaay bi mu ko taxawoo ci moom moom Serigne Assane taxaway bu rafet bo xamanteni ni ku sant kan rek wala kep ku bëgg l'islam rek wala kep ku ab jullit taxaw ab xolam sel rafet na contane na ci taxaway bi nga xamanteni Serigne Assane taxaw nako magam ju tedd ji Serigne kan, kan nga xamne da ko joxom leppam bëggul mu sonn ben yoon bëggul mu jaaxle ben yoon ci lepp lo xamanteni mu ngi ko yëngal ci pencu mbayam mi nga xamanteni say tourner mom Serigne gis Serigne Assane kan ci xolam sedd xelam dal mm-hmm. ko wara muy njambaram ak fitam

julit ñep rek waaye ah, di sante Serigne Souleymane kan di ñaanal suñu borom defal ko jamm defal ko tawfiq di beral ak ñaan Serigne Assane kan mom bu baakha baakha baax ndax lepp lu nekk ci ñun rek danaka mom ci alquran ci xam-xam ci lepp di sante tamit sun mag di ci Serigne Cheikh kan di khalifa Serigne Mor kan nga xam ne ñun do na nekk ci ginaawum rek lu mu joxagne rek ci lan ne mm-hmm. ñun ay talib rek lañ bëgg do te mom lañu ñaan yalla mm-hmm. bo defé ci lu rek lañ ne mbolem ku sant kan rek seen mor kan meñ la yaa ci ginaaw Serigne Cheikh kan mu nekk ci ginaaw Serif Assane kan Serif Assane kan nekk ci ginaaw Serigne Souleymane kan ndax yoonu murid toppante rek la ñu defé ñu ñaanal képp ko xamantene téw na fi rek suñu borom faj aaje mm-hmm. di yëgal gam gi ñëpp rek ñu mëna téw ci kàttanu suñu borom ndax pénc moo xamante ni la lépp lu waaye bëgg a defar ci jëmmam boo fa tawee suñu borom mën naa defar loolu ndax pénc la moo xamante ni ay nit yàlla danga fi yeewoo ay nit yàlla rek fi ne saa su ne xasida yaa ngi jolli alxuraan jaa ngi jolli zikrullahi yaa ngi jolli bu nuy waxtaan moom la ñuy waxtaanee bu nuy wéet moom la ñuy wéetee ndax xadisuhum zikru muhnin naafiin samadi la zikru hindin walum na fil maqalaati mom lolu seigne touba waxoon mom lañuy doxé ci penc mi ndax nasina salma walayla bil busharaati nga xamni kon ay góor yalla fi ne penc mu ni defaro la bu yagul rek koy wax kenn ko xamanteni ministre la ci rew mi ko boo bëggee borom fa ci aajo fexeel ba kenn man la baña gis sax nga tew ci penc ma tew la ci aajo lo fa ñaan sun borom def ko ndax borom penc mi liggéey nako fi ta ak njabotam tamit nu liggéey ba ko defé ñu ngi ñaanal kep ko xam ngi rek yàlla defal la jàmm defal la tawféex ak li nga xamante ni moom lay yéene ci bis bi suñ boroom defal na ci lu faw ko suñ jortu waaye suñ xel dal na ci bu baax a baax a baax a baax ngay ñaan lu wér. nasrun min allahi wa fatun xaribun wa basirul